Biram Faye ah Aliou Fatfat bàyyi ma teel la. ginnaaw bañ sant yàlla. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. ginnaaw bañ sant yàlla julli si yéen sant suñu ñaari waajur di sant waa Fuuta. wàññil fecc yi fecc yi met dëkk yaay. ka toone di leen sant bu baax a baax. añam bi yëpp maa leen di sant nag añam. damay woo si maa leen woo bu baax a baax. bu Siteu lu mu koy wax bëriwul. waaw ko waxagum dara xaar mu fay la xaar. monsieur Kouma ak moom wax. waaw xaar xaar xaar mu nooyi xaar mu nooyi tuuti. non moo bul wax loolu. fecc non dangay nooyi. moo. ah waxal ko wax loolu kii yaakaar condition. ah may yëg si diiru tiw am police ngay wax ah, loolu. waaw waxal may booy confiance. ok waaw ñeme. nuyoo waaw ginnaaw bi ma sant yàlla julli si yonent di sant samay ñaari waaju di sant waa géejawaay bu baax di bëggee bi ñëpp nag di sant sama koñ Namara Baba daaru xama xam nga <laughs> tuwaan pël cité asa enseignant yi. xam nga ak tuwaan pël bi ñëpp daal. bu sa récupération bi daa gaaw. ah gis nga fan yii tuwaan gaale. booy moom man man moo rek. booy du ma ak ñoom. kii yow nga ne ki yow loo doon wax si kii nga lan. balaa amee wax dëgg may sant waa Malika. ba eh, pare sant woon nga ba pare ab yaa kenn cat ba cat Kër Massar. tey benn micro la ay see yëpp maa sant. bi si dalee Pastef ak Daaru. bisaab bi saay Kër Massar Mbedd Fass di ñaanal nag sama mag général yàlla na ko suñu borom may ndam ndam lu seddu guy sama xol laa ko tibbee di sant nag ci ñu waa école école de lutte Malika mbooloo. waaw yow waxal ci kii santu fi fii amuñu temps sant. tapet nga ñeme woo maa xool. booy xam nga waxal si combat bi yow nga yow déggoo ma la yow wax bu bëri. déggoo ma de yaa may dégg. yow amoo link yow doo bandi. Eh, man waxala eh, amul link yow. Eh, fii wax amul fii amul link dinañ ko dàq ci barke. waawaay yow daati Demba Ndiaye. mii daw ba bàyyi fa ay daalam. ci am na ay link. ma dàq jee may daw man ma nekk fa yëbu Tiwaan Pël Tiwaan Pël ma doon dàq jee wala fa lañ ma doon dàq jee man kay diini yàlla nekk di dàqanteeg diini ci kaw di yéeg di leen mbëkk xam nga. yow fan si bànn nga bàyyi ci maam Thierno. xamoo ma fan si bànn nga. mu dumay kii Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye topp na ko ba sonn. kii ba mu jëlee avancement Abdoulaye Khan Ndiaye dama koy sant moom xam na lu ma ko wax. yéen ñaa ko dàq bëre. wallaahi. damay sant waa waaye waaw wuy ma ci li ma lay eh, laaj. yàq yi eh, eh, sant gi doy waxal ci combat bi waxalal ci waxal ak man yàq yi ku dàq bëre yow. kii waaw. moom la bay bay kii maam Thierno kii nu mu demee la sa am moo tax ma jël ko yàlla mu ma tiim waaye lu ngi moom sax. yàlla da xeex ak moom. <laughs> kii daa ñemee xeex ak man. Ah? ku mu ñemee taxaw bu Siteu di xeex ak moom. si àdduna amul loolu déggoo lu la loolu international sax dañ koy jox man la Bou Siteu international déggoo ma de. Mawla Mbaye man waa diaspora bi laay woosal lamb ja. man kii comme Jalle c' est que waaw wooteel wooteel ok wooteel. kii c' est que moom wax ci bëri comme Jalle mais woo waa diaspora bi yëpp ñoom Sow Mbaye. mu waaw Sénégal diaspora bi di woo waa Malika bi. di woo itam sama ma fi. ah mais bu Siteu waa Malika Mbouy waa Montagne. kii tapal la. waa Malika Montagne man su ma xamoon lii du ma ñëw. waaw ah. parce que Tiwaan Pël laa jógee non taxawal man Tiwaan Pël laa nekk léegi Modou Mbaye. waaw xam nga nekk fa làqatu nekk sama intérêt yaa ngi ñàkk de yaa ngi ñàkk de lu ma ñàkkee rek xool ma rek xool ma sama bopp beeg lépp ay ñàkk xam nga kon kii waru ma mën a téye mënu may kii man ti diwaan pëli te xoola dégg nga sama interview lu ma la wax interdit naa la diinu diwaan pëli fu ma la dégg naa la tour embuscade ak mafia nomora bi lu yéeme laa la wax diwaan pël bu mu dëkk waaw pël bu mu dëkk ba mu ko soxla woon suba suba suba ñu indil ma ko ba kii maam keeroon day wax rek kii du ñëw kii déglu ma la kii xam nga fan la yem buy entraînement yemal diinu malika yi dafa gàtt ay diin yu cëkk ngeen yor man ay diin yu kawe la yor lan bi lan bi yee ay diin ay diin yu montagne yu mool Modou bala maa wax dara damay ah. sant damay wax ak waa kaso da ah. dafa am sam benn booy boo xam Modou Lo dafa yàgg si kaso premier combat Modou Lo Gris Bordeaux bu njëkk ba lañ ko jàppoon moom papi boobu léegi xoola instant procureur moo leen fa téye bàyyi nañ leen ba dawala fa deux ans eh, eh, eh, Modou Mbaye procureur moo leen fa téye arrêté fii du tribunal dañuy def face a face fii du tribunal. mënu leen rek non non ah, pour eh, eh, eh, pour ne pas régler vos fii fii du tribunal kii muy wax ba pare. eh bu. kii ba may rapporté 2016 ba may daan Gambie waaw waaye waaye da ngeen nuy baal fii du tribunal jàpp leen ci rek. procureur néew fi dara ne ñun dañuy wax waxu làmb wax leen waxu làmb. booy woote waxu làmb la ñuy wax mais. waaw Mourou Mbaye ma xam nga ñu laay doy na waaw c'est bon. Mourou laay woo waa Seras damay woo waa bi sama nii sama ndijaay bu fa nekk sama ndijaay Ousseynou ak Assane mm-hmm. di leen woo sa làmb yi ak ñu fa nekk ñëpp di woo tamit sama booy dañoo sonn si man mm-hmm. Modou Mbaye booy seen ay juróomi ki ñaar dara la ñuy jël tey caméra baa ngi nii xoolal ko jox mi ngi nii waaw waaw di sa du woo na grand ji bi seen làmb ji grand bi woo naa la si làmb ji sama papa nga maa la si eh. woo bu baax a baax di woo tamit Pape Thian borom Gambia maa lay woo sa làmb ji bu baax a baax du woo tamit grand ah, baabu di nuyu sama grand frère yi nekk sama koñ waa seen xonde di jël nuyoo bi di ko teg si loxo eh, biram di nuyu jeege waaw waaw waañ bi eh, taxawal nii waa eh xool leen vous êtes en direct à la télévision yow yaa ngi en direct télévision ngay wax nii rek déglu li ñuy wax non moom daf loolu daf ko war a leer warul xool ñoom Modou Lo ak dafa war a <laughs> na la. aywa may ko ñu caméra bi jël non xam naa la. waaw wooteel ta xam nga di woo Petit Laay borom maa ngi woo ci combat ba sànq xaas bëri ma yónnee te sax loolu sax waru waru ko def mais Petit Laay maa ngi lay sant bu baax di bëggee tamit sama gars yi mafia bi boo limee da ngay ju Modou Mbaye mm. mais maa ngi bëggee waa diaspora bi suma mag góoraa mu ngi Espagne buusat këcëb aw ma fayam du souhaité suma benn moment boo xam ne madame Touré maa ngi koy souhaité bu baax borom KBS ki vi kii voyage maa ngi koy sant bu baax madame Touré suma moment suma lépp waa maa lay sant bu baax di bëggee waa jàmm gën aw ma seen fay Modou Mbaye di félicité Siteu si combat bi yàlla defal ko ndam di encouragé Papa Sow xam nga di wax ne Papa Sow yàlla ma la wax Modou di bëggee waa jàmm gën ku si mel ni ñoom Mame aw ma san fay maa ngi bu baax di bëggee nee na taal xam nga sama xarit damay woo Sadio Mané bu baax da ka ñaanal bu yàlla yàlla na wax suñu borom may deux personnes jaam ak a Sadio Mané sama mag sama lépp maa ngi koy woo si làmb ji dinaa la yàlla na la grand bala